أجا قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرام salaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi yéen ñu faral di ñu ci seen chaîne bi di Chronique TV tey ñoo ngi fi ñëwaloo leen Fass Fass bu ñu leen fi ñëwalee li ko waral mooy Bordeaux Tidiane bi tey nag moo nekkoon troisième jour bi nga xam ne ñoom lañ ko jagleel ñoo ngi fii ci jumaa Seydi Jamil bi boo leen gisee mbooloo mi nekk ci biir xam ne ñoom préparé nañ ko bu baax Bordeaux bi nag euh, El Hadj Malick Sy ko daan faral di ko def. Euh, daana ci am ay jàngat yu ñu daan joxe aussi tamit daana ci woo nga xam ne ñooy muxadam yooyu nga xam ne ay muxadam lañ leen tuddee bu bër bi masaa daana leen woo waawoon di leen laaj ci actualité yi nga xam ne moom moo xew ci dëkk bi daana leen laaj ci wàllum religieux aussi ak ay ay yoo xam ne doon leen ko dénk yooyu yëpp daana ci waxtaan ak ñoom bër bi aussi nekk na ay commémoration yo xamné ci lañuy jang ay ay ay jikkar di ci di ko màggale sayidina mohammed yooyu yëpp tey ñoo ngi fii ci Fass fas yéene leen jëlal bur bi 3e bur bi ci Seydi Jamil bu ko defé ñand ak yeen ci bir xolal leen lan mo ne xew ci bir du mëna xew. na ngeen nek borom xam-xam. na ngeen nek borom xam-xam. bu ngeen ko mënul déglu ngeen di déglu borom xam-xam bu ngeen ko mënul bu ngeen sax ci jàng ngeen sax ci jàng nee bu ngeen mënul ñett yooyu yëpp nag ngeen bëggal ma ñett yooyu francs la mooy taawu kër kër nag kër nag boo fa amee taaw te njaboot ga sakkan njaboot ga sakkan kon caate ngi ci biir kii nag fu mu dem fu fu mu dem fu ne man jaawaza àddinaana ma fa man wa xat jaa a minal alam moo tax nag kenn mënu ko jéggi. moo tax moom taawu moomu kenn mënu ko jéggi. waaye nag fu mu dem fu ne. waaye fu mu dem fu ne. mës nañ ko utal ay seex. mës mën nañ ko utal ay seex. mën nañ ko ay seex. caat de xaw ma ku ko fi indi waaye caat de. kon dañoo bëgg. ci guddi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ñi bëgg yonent bi laa wax de ñi bëgg rek ñi bëgg yonent bi laay wax. ñi bëggul yonent bi moom. no ñooñu waxuma ci ñoom dara dama bëgg daal ñu wutal ko ay seex moom àddinaan mii taaw bu mënul ñàkk ñu wut rakkam rakkam ngoog noonu maat njaga nee na kii mooy maat mbaa mbaa tuddee téeméer abdalaa rek mbaa du abdalaa rek demee ba néew ñu demee ba néew doole nag. rakki rakki caat. ñu daal ñu daal di indi euh, nu mu tudd ay siisa wa xayra siisin siisaa ngi fa ma taatihi mun waaye nag waaye nag terewul nag lépp ci njaboot gi la bokk. kon daal na njaboot gi ñëw. ngir lan ñu teralee ko ñii. sëñ bi bu Sénégal doon football. Sadio Mané dal di dugal bi ñu dañuy tok rek ah, nan bi bi rafet na nu ngeen di def ginaaw Sadio Mané dugal bi ñepp juk gis borom kër go xamni day bekk ba ci kanamu njabootam sax day def fu xale yow ñu tuddu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ta'zimuhu taazimuhu حين تذكره حب القرآن وأصحاب له الكرم ها كون ورنا لو غور غور لو واي سيمام عثمان ليك دافا بيغال واي كات اك استاذ تي يو لا يوننتي بي واخون يا نساء تصدقنا ولو من حليكن فاني رايتكن اكثر اهل النار ابو بكر مو غارانتي وني فني وايي يوننتي بي كوفا ديف سا علال بو يوم القيامه بو بوغي ديم سفرا ووما سي مالك دانيال بي جيرومي مينيت خمغا لان لا ni imam Ousmane def léegi ni mu way kat yi nonu la Serigne Babacar si sayyid al Hadji malik ni ko wa indaka al ilmu man nag góor googu laa bëgg Seydil Hadji Malick bëgg naa daal ñi nekk ci jumaa ji ñëpp fi tasu ci barke Seydil Hadji Malick li ma leen di wax de ci sama xol bi laa ko tibbee bëgg naa ñi ci jumaa ji ñëpp jaaraamaal Cheikh Seydil Hadji Malick fi tasu وإنك لعلم والمعنى تمثل الموت بين الأئمة والضلال neexul ba neexul Serigne Babacar ni ko bàyyi li nga def jafe na de da ngaa déparé ci waaw di daaneeli mbir dem ba ca waaw daaneelaatee mbir bàyyi woo yonent bi ci leer bi bàyyi woo ko bi mu nekkee liir bàyyi woo yonent bi bi woy juróom bu góor di génn àdduna bàyyi woo yonent bi bi woy juróom bu jigéen di génn àdduna bàyyi woo yonent bi ba ni muy bàyyeekoo Màkka dem Medina bàyyi woo yonent bi ci ay feebaram lal ya mu amoon wax nga ko soxna ya mu amoon wax nga ko fa mu jaar ak saxaaba yi wax nga ko xare ya mu xare ko trois heures du matin topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci madinatul munawara quran amul dara amul kafa bàyyi ben dalam sayyidul xaaji malik wax nga ko ndox yenu sangee yonent bi sidaaji malik way nga ko ñan ñoo fekke sang ga sidaaji malik way nga ko donte 4h du matin xajna na kafa deson fit géey rëf-rëfi sidaaji malik way nga ko wamna na alxamamat ras qabr yabda min wijahati rasi summa alxalbi zub darami sëñ babacar ni ko ku iñaanul ni la gongo way andaka al ilmu wa indaka al ilmu wal maana tunsiruha لا جو سمان شيخ سيد الحاج مالك وعندك العلم نكنا تي يو خم خم بو نيت ني دول ورانتي واي وال معنى اك بيرسوناليتي بو خامي تنسره سيد الحاج مالك دان كو تسار ييم توبا بي تنيمي وون لاي والله جمال سي وعندك العلم وعندك العلم ابرد كل جمال ابو كل جفلان سيد بابا كان باي ابرد سيران كل جنان بيبو خلو كل بغ دابو قسم باخي الله مالك جفلا ورنا عبدنا ولست تعلم في إحسانك النقرة جرجف نجا سيبي ولست تعلم خملو الله مالك نقرة سيبت في إحسانك تسرفتا أحسنت من عبده مولو رين بابا كنكو بايا رفتا لنجا تجايا لنتبي وزرت مولو alaaji malik bi dem madinatul munawara jafe alaaji malik yaa ziyaare yonent bi alaaji malik si ba nga demee màkka wal tufta yaa wër baytal ilahi néegu yàlla ba xajara dojo wal xujara ak mbëstan ma ay baay seydil xaaji malik bi nga dellu see sénégal waxumta yaa taxaw fi xaqihi ci say dëgg-dëgg li lay ñeel yàlla mujtahidan di góorgóorlu sëriñ Babacar ni ko bay gàccem nga laama jeexal nga min ka ci yow umara ak sag dund bi mardaatil aali ci ngërëmu yàlla yow Baye Seydi El Hadji Malick tagg nga ki nga xam ni yàlla laabal na dembam laabal tayam yàlla tagg nga ki nga xamante ni yàlla kawe na ko ci kawe yu alaaji maali ni ko bàyyi tag nga ki nga xamni bi mu ñaanee yàlla yàlla may nako la mu ñaanon yàlla bëgg medinatu mun a war a taw ba mu sawaan baawaan alaaji mali sëñ Babacar ni ko bàyyi tagg nga yonent yàlla Muhammad mi nga xam ne yàlla jàkkaarloog jëmmam ji ni ko la nga de taayif ma ni la wax li nga bëgg nga ni rabbi yow fiir li xaw mi fa innahum la yaalamun yàlla takkal la garaat bu mu dul takkal ci kenn garaat bi ko yàlla takkal moom yonent yàlla Muhammad moo yàllaa ni wa innaka la ala xuluqin azim waaye yàlla daal di ni yonent bi sa waajaangoog Cheikh Seydi El Hadji fi may daanele grand maaj bu yowmal xiyaame bu jinne na ose naa jàkkaarloog yàlla ni ko bi may gane àdduna ba fas ci waawoon ñeme naa nga def ko ci écran géant du ma sëgg mukk man Cheikh Seydil Hadji Malick si 66 ans laa dund mu yemook allahu dugal nañ ma ci godron bu ñuul kukk génn naa weex tàll ni ma mel ngi li ma bëgg nag lenn la yow yàlla ma jàkkaarloog yonent yàlla Muhammad nga jël sama garaat jox ko wajaal xilaadata jiidi fi asaabii man yow ah, fi asaabii man alayhi anzalta ayatin karimatin kañ nga ko bëgg mu ni bis bu metti ba yow ma yafiru ashirun min ashiratihi wa ummihi wa abihi summa zawjaati ربنا ملكنا إلهنا من شر الوسواس الخنا الذي يوسوس في صدورنا من الجنة وانا تك فرما تلفون بيغنا سير جالك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kër gi at mu nekk ci ndigalu mag ñu ñi di de Aziz Si Al Amin et di nuyu ki nga xamé ni Mohamed def na nuyu yi ba nopi xamna ni Sidi Ahmed dina ci delu ci et ñun ci ñu wal rek moy nuyu délégation bi nga xamé ni moy décentralisation bi ñuy nuyu nous délégation bi suñu baye suñu

ilaa rabbina Cheikh Seydi Mahamadul Mansour ibn Seydi Jamil yàlla yàlla nangoo ñu suy ziar et di sant bu baax di gërëm li nga xamee ni moo yëwanal sonorisation bu rafet bi yépp foo tollu di dégg ak vidéo projecteur yi nga xamee ni suñu mbokk jigéen ñi lañ doon toog fële di dégg rek wala léeg-léeg du ñu dégg sax bu baax te du ñu gis ñi nga xamee ni ñoo nekk si biir enceinte jumaa ji yàlla suturaal ñu ren ji Bachir Camara ñu koy sant di ko gërëm si kanamu président si taxawaayam si jàppaleem àndante ak ñoom caw ñoom Mbaar Ndiaye bu kër gi ñoom ñëpp taxawal mbir mi ba lépp yem kon su président toogee tey fekkee ko dinañ wax taxawaay bi ngeen taxaw si kër yi te président ji li yëgal nitim ñoom ñii ñetti àjjuma ñeenti àjjuma ñu toog ñëw fii diriger xadara bi wala bu ñu diriger wul xadara bi diriger wasifa bi te bu ñu ñëwee rek ñu xam ne ñëw nañu ñu leen di sant bu baax di leen gërëm seen taxawaay lépp ci seen ndigal yal na yàlla yàggale si kanamu mbooloo mi yàggale ci kanamu njaboot ji et di bëgg loolu itam si li nga xamee moom su suñu sëriñ def léegi ñu maam ndax ñii man de ba ma bi muy si kër gi ba léegi ñoom rek laa gis du ñu taxawaayu si tànt taxawaayu ci tànt ni buñ leen woowul wala buñ leen joxul programme bi wala buñ leen invité si ñoom ñi rek laa ko gisee kon nag bu sëñ Maam Ousmane xamee loolu ba xam ni fi mooy seen tool fi mooy seen ëtt ñu daje fi ñun ñëpp mu bëgg ñu dimbalante suñu biir laajal ni li mu leen laajal nii njagatim def si lu yéeme ndax man teraanga rek laa nga xamee xale yi ñoom ñëpp bu mu mën jëlee kàddu nee ñu teral jaga bu njaga jëlee kàddu nee ñu teral mun jaay te loolu rafetal la ak teraanga seen diggante ñu leen ci sant leen ci gërëm Moussa di seen kilifa nekk fi moom it loolu la leen jàngal noonu la leen uufee noonu lañ ko xamee àndanteeg ñoom yéen ñoom ñëpp ngi fi di leen sant di leen gërëm et mënuñu daaneel nag te gërëmuñu et may fàtte nag di gërëm tamit Abdourahmane Pay ànd naag suñu bàyyi bili

chronique TV teew na si ak daaree Linguère ci teew na fi ñooñu ñëpp teew nañ fa si wàllu média si wàllu télévision ñu ngi leen di sant di leen gërëm seen taxawaay ndax ñoom ñi ñëpp sëriñ bi bindu ñu si kenn leetar nee la ñëwal couvrir lu ñu lii seen mahabba ak seen cofeel ci biir kër gi moo leen tax a bàyyi seen yitte yëpp ñëw joxuñu si kenn dërëm ñu ngi nii ñoom ñëpp wax dëgg yàlla loolu jar na sant dana gërëm kon. gannaaw wax ji kenn xaaruñu si kenn yoruñu si dañuy bëggoon bàyyi rek xàddam si c'est aadatan mu joxe dalal délégation bi nga xamee ni ñoom ñoo jiite lii di ko taxawal si Ndakaaru lu ko wër yépp su noppee ñu jox suñu bàyyi bi li fay mu tontu moom it et euh, joxe kàddu délégation bi suñu paree dañu jox Sidi Ahmed si nu waxtaan ñaanal leen ñu doog a commencé burdu bi burdu bi nag si Ahmed si nee na mi ngi ko toog si loxo rakkam xaritam soppeem ba Sidi Ahmed si mi toog nii muy burdu tey bi nee na na ko ànd ak kenn si xale yi ñi si des ñëpp aw burdu suba bi moom nag moo koy taxay moom si boppam Sidi Ahmed moo ñu wax ni Sidi Ahmed moo ñu wax ni Sidi Ahmed si mooy taxawee bugg suba bi moom si boppam fële si xadda si xadara bi yëpp si fële si obélisque nee nañu nag léegi dañ ko taxawee obélisque waaye boo taxawee si obélisque rek am na comité d'organisation bu lay guider pour yabal na si bopp buntu gendarmerie bi kon ñu bàyyi ko xel wasi ba cinq heures suñu paree xadara suñu paree xadara doon dugg si waxtaan bi doog a def bunt bi mi nga xam ne mooy xalifa kër gi àndante ko ak sunu sëriñ yi toog Sidi Ahmed Sy ak sëriñ Pape Mame Ousmane ak sëriñ Mame Thierno Kane ak sëriñ Pape Ibrahima Ndiaye fa tabarakallahu di nuyu sunu kilifa yi ca Tiwaawan

fa tabarakallahu ñu indi fi seen bopp fekk fi itam seen bopp fa tabarakallahu nee na loolu mooy li sunu borom bi tabaraka wa taala dogal macha allah nee na woowu wëllëre nag ñu doon ne ko ca mag ña maam yi jaayante woon ak sayid alxaaji malik radiallahu taala anhu loola di dox ba sunu jooni yàllay tey yàlla moo wax ne walladina amanu wa tabaatuhum durriyatuhum bi imaanin yàlla nee na alxaqnaa bihim durriyatihim wa ma alatnaahum min amalihim min cheyin yàlla nee na gaa ya nga xam ne dañu ma gëm te sët yañu sët yenu am topp leen ca ngëm ga ñu ma gëm yàlla nee na danaa yéegee jëfi sët ya ca kaw jëfi maam ya doon telee sax sët ya jëfuñu lu toll ne la maam yi jëf Seydi Mouhamadul Moustapha radiyallahu anhu ne ah a ah, loolu de dëgg waaye nag ah set ba bu mu wàcc yoon wa nee na boo ànd ak nit ci yoon ay jéegoom sut say jéego mu dem ba yegg mu geestu gisu bu toppaatee moom aji dem ja ay tànkam bu fekkee ne yow mi topp naa ginnaawam wàccoo yoon wam jaaroon dana ndajeeg yow te dana japp kon ci sa loxo ba eggale la fa nga bëggoon a dem mu ne aaya boobu ci la administration bi sukkandiku ba doomu fonctionnaire bu juddoo di fayee ko allocation familiale te doomu fonctionnaire liir boobu liggéeyalagul dara gouvernement fa tabarakallahu ba tax na macha allah ba tax na macha allah. gannaaw nguuru addina. gannaaw nguuru addina. moo am xereñte gu toll ne. moo am xereñte gu toll ne. di fay doomu fonctionnaire am. di fay doomu fonctionnaire am. te liggéeyalagu ko dara. te liggéeyalagu ko dara. ndax ngeen yaakaar ne kon yàlla amul boobu dogal ci mbiram. ku la ñaagal. nee na sëñ bi nee na ku la ñaagal. nee na moo la ëpp reer. nee nguuru nguurug àdduna nag ci nguurug yàlla lañ ko ñaagale àdduna ci nguurug yàlla lañ ko ñaagale kon fa tabarakallahu nit yàlla yi nag seeni doom seeni doom mooy ñi ñu njaboote mooy seeni doomi maana mooy seeni doomi maana nee mbir mi nee na dama dee faral di wax ne chef de service. chef de service. moomul société bi. société bi muy liggéeyee. waaye agent yi ko booleel. waaye nag agent yi ñu ko bolel amna sañ-sañ ci ñom ñom de amna sañ-sañ ci ñom bu fekkee agent ba def na la ko war. bu fekkente ne agent bi ñëw na ci yu kay bi def ci liggéeyukaay yu kay bi liko wat ba chef de service bi kontaan ci mom bu rapporté bu ko bu rapporté. nee na ñu yokk salaire am wala ñu yokk catégorie am wala ñu jox ko ay prime bu demee ci bureau directeur directeur day daal di signé rek su fekkente ne nag safaan ba yi la def itam ba mu mere ko bu nee nañ ko licencier wala ñu mise à pied ko wala ñu def ko avertissement bu àggee ca bureau directeur ba loola lay signé chef de service nag. chef de service nag. balaa nga koy nekk. balaa nga koy nekk. da ngay nekk cadre. da ngay bokk ci cadre yi ci société bi. kenn dem ci planton ya. kenn du dem ci planton ya. wala ca manœuvre ya. wala ca manœuvre ya. wala ca gardien ya. wala ca gardien ya. wala ca ouvrier wala ca ouvrier ya. di ca tànn chef de service. ca cadre ya la ñuy dem rek. tànn fa chef de service. kon balaa ngaa nekk cadre. kon balaa ngaa nekk cadre. da ngay am ijaasa yu kawe. da ngay am ijaasa yu moo xam ingénieur nga. moo xam ingénieur nga. wala expert nga. wala administrateur nga. wala contrôle de gestion nga. ci yooyu le cadre. bu ñu bëggee nommer chef de service. ci ñooñu la ñuy tànn. def leen chef de service. yàlla itam. yàlla itam am na ay cadre ni ngay examen di am ay diplôme ni ngay examen di am ay diplôme di yéeg ay catégorie di yéeg ay catégorie ba bokk ca cadre ya ñu war laa tànn boole la ci chef de service yi yàlla moom it noonu lay examiner ay jaamam di leen takkal ay grade di leen joxe diplôme ba boole leen ci ay cadre moom yàlla examen bi yàlla di examen jaamam. examen bi nga xam ne moom la yàlla di examiner jaamam. bay ba koy yéege ay catégories ba di ko yéege ay catégories. nee na mooy nattu. bu la nattoo nga muñ. bu la nattoo moom yàlla nga muñ. mu yëkkati la. moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina amanu. moo tax mu ne yaa ayyuhal lazina amanu. ista'iinu bi sabri. wa salaati. inna allaha ma'a sabirina. ngànnaay bi gën a bi gën a bi gën a ñaw. nee na ngànnaay li nga xam ne moo gën a ñaw. nga xam ne fu ñu ko dóor mu dog. ci kanamu muñ. ci kanamu ci kanamu nattu. ci kanamu nattu. muy muñ nee na ngànnaay boobu muy muñ. moo tax. nee na loolooy sababu. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne. akbaru jihaadi. akbaru jihaadi. jihaadu nafsi. moo tax fa tabarakallahu. nee na looloo tax fa tabarakallahu.

muhtadoo na nag ku fa àgg ci moom àgg nga ci bokk ci cadre yàlla yi boo nekkee cadre nag boo nekkee cadre nag yàlla buy tànn chef de service ci muhtadoo na yooya lay dem tànn fa chef de service ñun nag chef de service bi ñu yàlla booleel mooy Cheikh na Tidiane Chérif radiyallahu anhu nee na bu fekkoon te mbir mi société la ma ne président conseil d'administration bi moy sunu borom bi tabaraka taala directeur bi sallallahu alayhi wasallam moy Muhammad chef de service bi nak moy nit yàlla yi ñi nga xamni ñi nga xamne yàlla tamponé na leen wutal leen budget boole leen ak ay agent ñii nag àndal ak ñoom ngeen liggéey amara nabiyu imaamana bi tanazzubi li ifaadatil axlaaq bi Todos os تنزلي بإفادتي الأخلاق بالبرد الجليل أمر النبي إمامنا بتنزلي فأجابه نينا السيد الحاجي مالك رضي الله عنه دافا واخنا امرنا ديغلنا من السيد الحاج مالك كان جوخي ديغل من النبي من النبي من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مو جوخي ديغل كان لا جوخ ديغل امامنا سن نجيب تمو شيخنا تجاني رضي الله عنه لان لاكو ديغل لان لاكو جوخ ديغل بتنزلي wàccal ne ko wàccal. am na foo xam ne fii am na foo xam ne. boo fa tolloo ci maqaama boo fa tolloo ci maqaama. mënoo mënoo kenn. a jëriñ kenn ci jaam ñi. foog nga wàcc foog nga wàcc sa bopp. ba yam ak nit ñi ba tolloo ak nit ñi. moo tax sëñ Omar Gueye daan wax ne moo tax sëñ Omar Gueye daan wax ne. ku war gileem ku war gileem. bu déeyoo ak kuy dox sëgg am na fa yoon. mu ne ko nga wàcc nag. mu ne ko Cheikh nga wàcc nag. ngir lan li ifaadatil axlaaqi ngir nga jëriñ bindee fi. bil wir dil jëli ci wirdu wu dijj wi nga yor te muy salaatul faatiha. keroog bu soxna Asi nelawee. keroog bi soxna Asi Asi nelawee. bu sunu baay Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum radiyallahu taala anhu ba nu ko yóbboo Tiwaawan denc ko ba noppi ba ñu dellu see ci kër gi dañu wax ne Serigne Cheikh ne ko ah, ah kon dañoo bëggoon a jël ubbi téere yàlla bi jàngal ko alquran mu ne ëpp naa def ah, ñu ndesi ñu ndesi ñu ne ko ah non ndesi miin. li nu miin. mooy amee mbokk mu bu nu amee mbokk mu fi bàyyee ko. bu bu nu ko sangee jullee ko jébbal ko boromam ba ñëw. bu nu dellu see dañ koy jàngal alxuraan. wàcceel ko kaamil ya wàcceel ko kaamil. ñaanal ko yàlla njëggal. Ah, mu ne ah xam naa ko. baax na baax na itam. waaye daal waaye nag. nañ ko jàngal salaatul fatih. nañ ko jàngal salaatul moo gën a wóor moo gën a wóor. ndax alquran ndax alquran. hudan lil muttaqina la ci yàlla wax. salaatul fatiha salaatul rahmatan lil alamin la. alquran. alquran. dafay gindee dafa gindee. salaatul fatiha salaatul fatiha. dafay sauvé dafa sauvé. ki daw ba egg garage na ki daw ba àgg garage na. ki ci doye. jëlatul gindi kooku. ki daw ba àgg garage. ki daw ba àgg garage. njëgal rek la ñuy soxla ci moom waaye dootul gindi. aynu rahmati rabbaniyat. sirru ba mi ngi ci biir salaatul fatih. bu ko defee kon. nee na bu ko defee kon. fa tabarakallahu. fa tabarakallahu. mu ne nañ ko jàngal salaatul. mu ne nañ ko jàngal salaatul fatih. ndax fa la sooy tax ba nekk. ndax fa la sooy tax ba nekk. moom la yàlla jox. moom la yàlla jox. moom la yonent moom la moom la yàlla jox yonent. moom la yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu jox ko. yonent bi jox mu jox ko Jibril. mu jox ko Jibril. jox ko yonent bi mu jox ko yonent bi. mu jox ko Cheikh na Tijaani radiyallahu anhu. salaatul faatihi. salaatul faatihi. yàlla ko liggéey. yàlla moo ko liggéeyal boppam. du lu doomu aadama du lu doomu aadama liggéey. yàllaa ko tëgg. yàllaa ko tëgg. imaam bikri yu. imaam bikri yu. moo dugg xalwa moo dugg xalwa. ñu wan ko ko ci asamaan. mu dem ba yaakaar ne jëfandikoo ci des ñu ne ko xool ko barkeelu ci ko te yem ci waaye moomu loo ko nag kon fa tabarakallahu nee na loolooy sababu moo la mën a eggale ci yàlla moo la mën a eggale ci yàlla damay faral di wax ne sama sëriñ sama sëriñ moo ma yóbbu àjjana ak sama sëriñ moo ma yóbbu ci yàlla bokkuñu ndax fa tabaarakallaahu ndax fa tabaarakallaahu pale laa jóge pale laa bàyyee ko mënuma ci gis gis wóor ne pale nga jóge rek gis nga Macky am na ñuy liggéeyee pale bis bu nekk te mosuñoo gis Macky waaye maa nga jóge bureau Macky waaye maa nga bàyyee ko bureau Macky nag ak man ak moo ma nekkoon wóor na ma nekkoon dem nga pale jëlatul nga naan dem naa pale فتبارك الله فتبارك الله موتا نينا موتا ني اندال نك ني نو اندال نك دانيو يوبو سي يالا نيوم دانيو نو يوبو سي يالا موم المريدين من كأس الوصول إلى نحو المراد الذي قد كان مأواه زي قد كان مولاه إذ ولده أو لا تنجل بذا أبدا إن المناء بلا تخمي من مزايا شقتي جن يسقي المور إلى نور قد كان egg ci yàlla. ci kaasu egg ci yàlla. moom sëñ Babacar wax sëñ. moo tax sëñ sëñ Babacar wax sëñ Aji Malick ne ko. loolu laa wuyu waykat yi may ma tuuti rek. nee na sëñ bi nee na waykat yi ngeen bàyyi ko tuuti mu ñaxatu ko. ne law laa wujuduka fi zamani amaatana. aksul wusuli wa kasratu dawaraani. budul woon te am yow bi la am yow. budul woon te am giñ la am yow Cheikh Al Hadj Malick. ci sunu jamono ji amatana dana reyno muné ko lan mo nuy rey muné ne ak maru egg ci yàlla abadan ala habibika khayrul khalq kullihim أعيا ورفه ممعناه فليس يرى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 كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وترجل طرف من أمامي قولا صلي وسلم يدرك في الدنيا حقيقته قوم يا منتسل عنه بالقلوب العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كله أتى رسل الكرام بها فإنما تسلت من نوره بهم إنه شمس فألهم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في أكرم بحلق نبي ينزانه خلق بالحسن مشتمل بالبيت متسمين والدهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم مولا صل وسلم دائما ابدا على حبيبي الخلق كلهم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حسبه مولاه

طوبى لمنتشق منه ومنتزب ما

وأسرافها يعطر الكون ري يا نصري العتير لأبي في المسك زكية منك إيها أرجو رضواني ينطق نجم السماوات نبات ساقي للجبال كما يليه قدر جميع الماء والمطر وعد ما حوت الأشجار من ورق وكل حرف غدا يتلى ويصلى والوحش والطير والأسماك مع نعم يليه ممكن والأملاك والبشر الحب بكذا شعص والسوف والأرياس والوبر وما أحاط به علم المحيط وما جرى به القلم مأمور أنت بها على الخلائق ملكا ومذ خسرا الأكوان ساروا Shakti Yeah. la a بها أنيا ما قد مر من عدد بعد في أطرافه يا من له القدر مولاي صلي وسلم دائما أبدا على أبيه بك خير الخلق كلهم كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر

بحقك مدروب بحقك في أنفاس خلقك إن غنوا إذ كسروا بك خير الخلق يا ربي واغفر لقارئها وسامعها يا ربي واغفر لقارئها وناظميها يا ربي واغفر لقارئها وحافظها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 قد آتينا ذنوبا لا عداد لها لكن عفوك لا يبقي ولا يزول كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خادعا والقلب منكسر حبيبك خير الخلق كلهم نرجوك يا ربي في دارين ترحمنا بجاه من في يديه سبح الحجر لنا أجرا ومغفرة يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة

لنا أجرا ومغفرة يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بارك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 وفرج الكرب عنا أنت مقتدر مولا صل وسلم دائما أبدا على أبيك خير الخلق كلهم وكن لطيفا بنا به الأحوال تنهزه بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالة نهزلت في مدحه الصور ثم الصلاة على المقتدى النهار وما قد شعشع القمر ثم الرداء أبي بكر خليفته من قام من بعده للدين ينتزل وعن أبي حفص

القومين من كملت وجد لحسن نورين من كملت

كل مين يا رب صل وسلم دائما وسلم دائما أبدا على شفيع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 Bhagavatam أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي بندن وحسن قمون مولو فيه وصليا يا إلهي وجزيا عبدا عنا محمدا المختار في القدم سيد الحاج مالك ñu xamal ne kenn mënta julli ci sallallahu alayhi wa sallam waaw kenn mënta dangay ñaan yàlla kay mu jullil la ci yonenti bi wa ya ilahi salliyan wa ya ilahi ajziyan muhammadan al muhtar fil qidami abadan anna wassalaamu alaykum

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin وعافية الأكرام وشفائها والنور الأبصار وجيالها اللهم من الأنواع والشرائع آمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المتقين وعلى آله آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام والسلام والسلام المسلم الله الله فارس بسم mbokki taalibe yi nga xam ne dañu leen doon seetaan tey seen bi di Chronique TV bi dañu leen indiloon tey ci burdu bi nga xam ne moo xew jumaay Seydi Jamil ji ginnaaw ba nga xamee ne euh, sëriñ bi fàttali nañu jàngale yi ki nga xam ne mooy sangu ko tedd yi muy Seydina fàttali nañu aussi jàngale yi ki nga xam ne mooy suñu maam El Hadj Malick Sy wax nañu yaatu ci burdu bi fàttali jàngale yi bu baax a baax a baax ak njariñul burdu bi booba léegi nag ñu ngi leen ne burdu yi war a daanoon nañ ko def li nga xam ne mooy 126 126 burdu li nga ne mooy biir Sénégal ginnaaw bu ñu génnee biir Sénégal nag war nañ ko def 43 43 à travers tout le monde nga xam ne moo wër àdduna bi dem fii wa France dem ba Espagne ginnaaw loolu nag ren na loo xam ne moom moo ci boo xam ne mosu ñu faar woon rek daaw ren loolu moo ci bees tey suba ñu ko war a dem fële ci Colobane تجيدي في أصابي من علي أنزلت آيات كريمات يوما يفر حسير من أسيرته وأمه وأبيه ثم زوجاته كل امرئ سأل يغني ذا فزع غير رسولك مصباح الجنات ما وسيلة في الدنيا وآخرته سوى الذي ساد من يمضي ومن ياتي هب لي إلهي يا رحمن عافية سواء عافية قبل الموالات يا الله يا الله فارزقني رفاية ليست بواية رب الخليقات وفي مخاسية لأواء عني ومني كنف أهلا أعلى اللطيفات أسفار الأحداء لا تثير بنا وزري أنت سميع الدحاء حسن عبادتي على الإله توبة وحمل المنون إلهي ربنا أمين نجاة न